mag ñi dafa am lu ñoo faj ak nu ñu daan faje moo di boo yégee ci sa bopp lu la jaaxal ca ko fajal sa bopp te loolu docteur yu bees yi roye nañ ko ci nitu yu ya ndax baat bu doktor yu bees di wax te mi ngi jóge woon ci Sahal ibnu Abdillah mooy li ñuy wax ni ixtilaalul mizaaj yaqbalul ilaaj bu sa deret wératul danga nga mën ko fajal sa bopp na ko imam Ghazali defe woon nangul sa bopp ci nit ñi dara la dul wàcc nga dem faj sa bopp bu wér péng bu fekkee ni amuloo force de caractère boo nangoo sa bopp ci nit ñi ba mën a faj sa bopp demal wuti ku la faj waaw ndax imam Ghazali dafa xuloog boppam jaamaarloog boppam te kin yeguko ko ni man wéruma ma xam ni wéruma te lima dal usna ko wax te moy dama yëg nit dama dama you. yëg ni ku d'accordul ak man ma saaga dama yëg ni lu nekk naqati na ma dama yëg ni lu baax lu waay am sama bopp laa ko yéene yéene wu kon kon nag mu nangu boppam ci nit ñi dem tëju ñeen fukki fan mook boroomam téere fiq yi mu am yépp wër ko bu ci mu jàngat ba ñeen fukki fan yi mat mu gis ni li ko dal fiq du ko faj te du ko faj mu yokk ñeen fukki fan lu la musul benn nit téere nazariyaat yi mu am yépp wër ba ñeen fukki fan yi mat mu gis ni li mu doon faj dara faju mu bàyyi fa téere fiq yi bàyyi fi téere nadariyaat yi ñeen fukki fan mu topp boroomam ni ko dimbale ma nga tibb ci wa yajal lahu wa ak wa jaala lakum bare na fu mu ko waxe nuuran nuuran ja mu ni ko tibb ci jox yaa ma dese wante comme dara jaam àggul ci lëmu mu ca bëgg ñu jox ko ndax daf koy gaañ ñu tibb ca la tolloog moom rekk jox ko lu ko mën a may sérénité bu mu d'accord ak nit ñi waaw incha lakum nuuran xamuloo ni ki téere jàngal mooy def musiba waaye ki yàlla jàngal du def musiba waaw looloo tax doomu aadama bu xamul boppam adduna bu tukki lay doon xamul boppam adduna bu tukki lay doon